Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn mais ñëw ngir nemmeeku jumaa ji nga xam ne ñun bokki taaliba yépp ñoo fi ñëw ngir defal ko Serigne Touba ne bi ñu tàmbalee liggéey bi boobu ak léegi léegi mu am ab diir waa yàggul noonu nag fa tabaarakallaa tey ñu fas yéene koy inauguré ne ñu àndoon ko Serigne Saliou Mbacke ne ñu nekk ci nag ne amoon na plan yu bari nee ba Serigne Saliou nee mu tànn ci plan yooyu yëpp benn plan nee yàlla dogal ñun taalibe ñu jublu ci nee man ak samay moroom nee ñu jàpp ci liggéey bi nee di ko liggéey nag ba tey yàlla dogal mu sotti nee sëriñ bi jàppoon tey jii fa tabaarakallaaw ñu war a jublu àjjuma ngir inauguration bi ne jumaa ji ne comme niñ ko waxee ne jullit yépp ñoo ko bokk ne du murid yi rek ñoo ko moom de ne waaye nag yàlla dafa dogal dañ koo jagleel maam Cheikh Bamba ne moom mi nga xam ne moom la ñu gëm ne man nag maa ngi gërëm yàlla ne ci ah fa sant yàlla bu baax ngir ñi ko tàmbali woon ci laa bokk ne may gërëm yàlla ci bi ma mayee kartan fa tabaarakalla ba ma fekke mën a gis bis bii nga xam ne moom la ñu war a yu na gërëm Masaalikul Jinaan ne xam naa ni sëriñ bi yaakaar naa ni sa xol sedd na ne ñun taalibe daal ñoo ngi taxaw buñ ci amee dara lu ñu war a jubbanti nga wax ñu ko rek ñu taxaw ci ne ndax kat ñun sa bànneex rek la ñuy wut ak lu baax lu rafet ne ak lu mengoo ak bëgg-bëgg maam Cheikh Ahmad Bamba ne amul lu rafet. ne ba weesu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa weesu maam Cheikh Ahmad Bamba. ne moo tax ñun bokki taalibe yi lépp lu ñu def rek xeeb nañ ko. ne maa ngi lay wax bisimilah. ne ndax yow yaa wax ne. ne man maa war dalal gan ñi. ne yaa ma ko wax de ne looloo tax tey Mbàkke ma dila la dalal ne di bal dalal sama mbokki taaliba yëpp ne di leen xamal ne ne la ñu ci bëggoon ne muy jumaa ju doon jumaa ju mucc ayib ne nga xam ne bu ñuy lim jumaa yi rafet yi ci àdduna bi ne ñu limaali ka Masalikul Jinaan nee sëriñ bi tey nag aw ma daara lu may wax nee xanaa di la gërëm nee di gërëm ñi nga fi wuutu nee ndax ñoom ñëpp dañ maa jàppale woon encouragé nee ngir ma sottal ko nee damay wax ne liggéey Masaalikul Jinaan liggéey ñépp la ne waaye kon ñun waa communauté Mouride ne war nañoo am sag bu day ni Masaalikul Jinaan ne bi ñu defaree loo xam ne ne muy néegu yàlla ne mu mucc ayib nag ne incha allah ci kàttanu suñu borom subhaanahu wa taala ay nit dinañ jóge ba bitim réew ngir ñëw seetaan si Masaalikul Jinaan ne ndax ay nit ñu ngi jógee bitim réew di seetaan mosquée Assane II ne ani ak yeneen i juma ne ñun daal ñun tabaarakallaaw ñun askanu murit ñun ñi nga xam ñooy yoon bi ñun ñëpp war nañoo am fierté ci Masaalikul Jinaan ne man nag lépp lu ma defal Serigne Touba ne ak lépp lu ma defal Touba it xem naa nee xam naa ko nee bu nu yàlla dimbale ba nga noppalu nee dinaa la nuyu si nee wax la yeneeni xalaat yoo xam ne nee yaakaar naan dina baax ci tuuba nee te dina baax ci yoon wi nee loolu boo ma ci joxee ndigal rek nee ma jublu ci loolu ne yàlla na yéex ba ma wuy ji sama borom ne man loolu rek laa jàpp ne ab taalibe laa rek bu war a dox ci yoon wi ne ngir rek ngir bëgg am ngërëmal Sëriñ Bamba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 Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn